di leen siyaara di ànd ak ci taarixul islam bi ñu nekkoon ci fan yi ñu toll woon ci nett li xare bi ñuy tuddee alxaadisiya ak fa mu mujj te ñu ñëw di andi la xew ca ginnaawu maarakatul xaadisiya la am ci ay xew-xew muy Fatxul Madain te mooy capital Furs ci atum fukk juróom jëm fukk juróom benn bis bi ñu tuddee yow bisub Bourse ginnaaw bu jullit yi gañee waa Faris ci maarakatul Xaadisiya Saad ibn Abi Waqaas dafa taxawal xeex bi lu mat ñaari weer noppalu noppalu mën a noppal mbooloo mi mu àndal ngir ñu mën a waajalaat yeneen bërëb ci diirub ñaari weer yooyu mu tane ci tawat ja ko daloon te mooy la mel ni ay góom ak li ñuy tuddee irqun na sax la ko daloon ba tax mënutoon a yëngutu ca ger ba ca alxaadisiya Eh, yàlla saafara na ko ci diiru ñaari weer yooyu mu noppalu bi mu noppaloo nag la bàyyi ko alxaadisiya booba ay fan moo des ci weru sawaal ñu romb béréb bu ñuy wax burs ak koofa dëkk bu ñuy wax koofa ñu romb ko ak baabil bañ leen rombee ak ca capitalu perse yi ñu di ko wax almadain Madain fofu la iwanu Kisra nekkoon iwanu Kisra lu siiw la moom la sëriñ bi tudd ci jasbul xulub iwanu Kisran sadaa fiha Iwan Kisra mel ne mooy palet Kisra Kisra nag bu ñu ko waxee bépp buur bu yilif force rek Kisra lañ koy woy ni nga xam ni ku masaan yilif rom Kaysar lañu koy kon loolu dafa doon aw dàkkental ci ku doon buur ba mën naa a doon aw turam dëgg ni nga xam ni ku masam doon buuru misra firawna lañu koy wooye kon pale bu mag boobu ñu daan ko wax iwaanu kisra te mu nekkoon ca almadain ba ñu demee dañu ko ndomba ndomb fekk madain dañ ko xaaj ñaari cër madain al al garbiya ak madain al sharqiya madaa in gi féete wàllu sowu ak madaa in gi féete wàllu penku bi ñu ñëwee dañoo wër ndomba mm, dëkk boobu ñuy wax madaa in mm, bi féete wetu sowu dañ leen wër ndomba dara du dugg dara du génn ba mu tar ci ñoom lool ba wax nañu ni àgg nañu ci di lekk ay tan ak i xet ginnaaw bi la ñu doon rek jéggi la dexug dij la jëm ca almadain alsharqiya daal di fay tàbbi bañ demee saad tëral programme muy mbooloo mi mu àndal ñenn ñu ne mu placé leen ba mu taxawee nag taxaw na fa ab diir sax na fa ab diir ba benn waay ñëw ni ko waaw looy taxaw fii na nga xam ne ñetti fan de doo ko fi am mukk te yas de jërd roñul alal yëpp génnee ko dëkk bi lépp lu nekkul ma daayin boo fi toogaatee ñetti fan dina génn yas de jërd dina génne dëkk bi fekk booba yas de jërd mu ngi nekk ci waajtaay ngir daw ngir daw bëgg dem làqutu ji xolwaan ba lu ëpp ci ay bagaasam yónnee na ko fa yónnee na ko xolwaan mu dem léegi Saad daal di dogu ci géej gi dexu géej la da di waxtaan ak arme bi woo nit ñi ci ni leen nañ jéggi ni leen dugg leen ci dex gi te wax baat yi ni leen nastaciinu billah wa natawakkalu alayhi xasbuna allah wa nicma alwakil wallahi la yansuranna allah waliyahu wala yudhiranna diinahu ولا يهزمن عدوه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بعد يوي للين سعد دقلون من وحكو تبت جيج دخي أستعين بالله ميدان ندمنكو يلا ونتوكل عليه تمامت لني سكنكو حسبنا الله يلا ديننا ونعم الوكيل تباخنا دين ويرواي daal ni wallaahi la yansuranna allahu waliyahu giñ nañ ni yàlla dina dimbale ku wala yudhiranna diinahu dana feeñal diine wala yaxsimanna aduwahu dana dàq ay nona wala xawla wala quwata illa billah dañuy wala xawla déet pexe wala quwata déet kattan illa billah ndare ndare bu dangaa sukkandiku ci yàlla al aliyyi al azim toppante ci biir dëj la fas yi xuus ak ñoom ba noonu lañu génne ñoom ñëpp mucc bi waa Faris mënuta tere jullit yi ñu jéggi nag lañu daal di daw dem xulwaan jullit yi dugg mbir almadayin bañ duggee fekkuñ fa kenn fekk yas de génnee na ak njabootam yóbbu leen xulwaan daal di leen di fekk saad bi mu ñëwee mu dugg ci taax moom ñu daan tuddee alxasrul abyad taax mu weex moo xamante ni ci pale bi la bokk noonu mu daal di jàpp pale bi Kisra def ko mu doon ab jullikaay foofu julli na fi juróom-ñetti rakka muy euh, salaatu fatih juróom-ñetti rakka yoo xam ne dara duxul ci diggante bi ab sëlmal amul ci diggante bi sax na ca yowaan balu mat ñetti fan jóge fa dem ca al xasrul abyad ca eh, taax ma ñu tuddee alxaslul abyad noonu saat digal ñenn ñenn ci jullit yi ñu dajale mboolem li nekk ci taax yi ak li nekk ci pale bi ak li nekk ci magasin yi ak kër ak marché yi mu digal leen ñu dajale mboolem lu fi nekk ci ay bagages te te lim ko te te lijjanti ko. biñ ko dajalee saat bi mu seddalee lañ màng bi mu seddalee nit ñi lañ fa jëlee. benn gawar bu ne am nga fukki junni dinaar ak ñaar te ñun ñëpp ay gawar lañ woon kenn ku doon doxe tànk amu ja ñi nga xam ni dañoo desoon gannaaw dañoo fàddu woon muy jigéen ña ak ña doon lijjanti yeneen lijjanti yu aju ci armo bi te des xayra mu sëdd leen seeni cër génnee xumus ba yónnee ko Omar ibnu Xataab xumus bi ko waxee moy moy liñu màng dañ koy xaj juroom xaj juroomel ba jamono bu dañ koy yëkkat teg ko ci loxol khalifa bi mu jëm ci baytul mal mu set nu mu koy nu ci lijeenté mbiri jullit kon lolu mo xew ca al madain amna benen xew-xew bu ñuy wax mawqiatu jalwala ci atum fukula ak juróom ben mo tam ci gaday tolok 637 ci milaadi saad sax foofu ca almadain ba cooroonu at moomu jàll lépp mu nekk ko ci ak noppalu yas di jër di mi doonoon buuru faris nag akub armoom ñoom dañoo dawoon dem ca doje ñi nga xam ni ñoo nekk ci tefesu dij la daldi ñëw mokk toroxlul saad ngir xam nañu ni jànkonte bi amul benn njariñ ci nawet ba ca sës ci la waa fursu dajaloo dem ca yasu di yi ca xulwaan mat digganteem ak almadain war naa mat téeméeri kilomètre ak nangam bi persi yi dajaloo foofee am ca ab kuréel bu ñëw ci jalwala ab armo bu jógee foofee ñëw ci jalwala jalwala nak ben sange la bo xamni dañ ko wërale won ngaré dañu ngaré won wërale ko ngaré lolé yit ñu wërale ko lu melni ay dégg ba kenn du ko mën bëtt jàll bi sax di déggee loolu yi ni dikk nañu jël jël wala te def nañ fa lu demee noonu ñu nga ñuy waajal ab ab guerre mu yonne ci Omar ibn Khattab léral ko ko Omar bind ni ko bind ko bataaxel ni ko yabal fa Hashim ibn Utba xaasim ñu yebal ko fa mu jóge mada ginnaaw bu ñu seddee seddalee lañ màngoon mu jóge Madain jëm foofee ci jalwalaan ànd ak fukki junni ak ñaar ci ay nit ñoo xam ne ci kilifa yi mu xaajiroon yi lañ bokk ak lamsaar yi léegi foofee jullit yi fa wër ndomba waa furs ci jalwalaa wax nañ ni wër nañ leen ndomba wër ndomba gu tar ca mujj ga nag lañ mujj xeex xeex bu metti boo xam ni benn xeex bu na mel xeexuñ ko foofee xanaa xeex xanaa leelatul xaris lu ci dul guddi googee ci xaalis yi rek la xeex bu mel noonu uh, toon foofu rey nañ fa lu mat téeméeri junni nit wala lu ko jege waaye ginnaaw bi lañ daw ñu gañe leen bi yas dëjër di déggee ñu ni dàq nañ armam boobu mu jóge xolwaan jëm ca dëkk ba ñu wax ar ray دك بابا كون نينكو اوبي تي ويرو زول قيادة تي عاتم فوك اك جرام بن تي غدا نونو مو جيل خوموسو لاج فا مانغي يوني كو عمر بن الخطاب واخنا ني عمر بن كو يوني مانغيت ما مو خول غيس ورسو زبر زبر جت خول اي جواهر اي غانجر اور يينكو يوني بيم كو خولي دا فا جوي abdurahman ibnu awf ni ko waaw looy jooy yow amirul muminin fii lii dër bu sant la si omar ni ko loolu jooylowuma waaye damaa xam ne lii àdduna la te àdduna yàlla mësu koo jox aw nit mukk ndare bu añaanante nañ ca seen biir di bañante te ay nit duñu añaanante mukk ci seen biir te yàlla deful seenu ay mu nekk ci seen biir damaa xam rekk ni àdduna fu mu dugg ak mbañante dugg fa ak añaanante lii rek laa gis te lii àdduna nga xam ne kon foofu gise nañ ci sori gis-gisuk Omar Omar ku soriwoon ak gis-gis la jamono bu ne muy gise foo xam ne nit ñi gisewuñu foofu ak uh, ragal gum ragaloon fitna yi àdduna ak bàyyi gum ko daan bàyyi xel feeñ na ci waxina moo wi fa ñuy wax takrit ak mawsil li lépp ay dëkk la yoo xam ni mu ngi nekk ca Perse Furs te waxoon nañ ci ginnaaw ni Euh, islam bi muy ñëw ñaari doole yi fi nekkoon nga xam ne ñoo seddoo adduna bi mooy force ak Rome ñi ñëw yëlif dëkk dëkkaan yi ñoo daal dëkk yi leen war yëpp ñee yëlif lee waaye daanaka dañoo xaajoon adduna bi ñaari xaaj rek ñen ñu ne féeti dara dëkk yi may tudd yëpp nag ci dëkk yi waa Faris notoon seenu ba ati dafa dox ci la bokk léegi Takrit ak Mawsil ña ngi fay ni ka ñuy wax Abdullahi ibnul Mu'tam mu fatxo ko mu ubbi leen dugal fa diine am na dëkk bu ñuy wax Massa Bazan ñu yebal fa ka ñuy wax Diraar ibnul Xattaab mu ànd ay soldaar eh, ñu daje ci béréb bu ñuy wax Handëf foofe lañ xeexe waaye jullit yi profité leen eh, Diraar jàpp seen kilifa bam mu ko jàppee la arme ba daw mu ray ko daal di ñëw ba fañe wax sirwaan ba noonu la nangoo maasa badaan ci force mu dugg ci loxo yi julliti am na fu ñuy wax Qarqisiya moom ka ñuy wax Omar ibnu Malik moo fa ànd ab kuréel dem fa moom itam nangu ko ci doole ñu nangoo joxe galak kon loolu mooy xew-xew yi xew ci gannaaw maxarakatul xaadisiya ci atum fukk ak juróom-ñaar ci gàddaay ci la ñu sañ ci dëkk bi ñuy wax al basra ci at moomu ci la ñu sañ ci dëkk bi ñuy wax al koofa koofa nag ak basra ñaar mujj nañu doon daanaka capital yi dini ndax ci foofu ci perse ndax dëkk yu mag la ñu xam ne basra danañ fay askanale ñu bari ci kilifay tasawuf yi yi ci gën a siiw mooy al xasan al basri بروم خم خم يداني وخني فقه فقه كوفي وتصوف بصري دي وخني تصوف بصر لا اسكنو واي فقه نك بوكو سوخلا ديمال كوفا وي نيار دك يو ماك يو خن رك امنا نوم تخاوي سي دين سي اتوم فك اك جوروم نيار سي غداي جي لا لين جولي دي سانتي مو بوكون سي دكي آه، بس فورسي كوفا نك امنا ñeenti poste yu ko wër yoo xam ne ay dëkk yu mag lañ yoo xam dañ ko dañ ko wër nii benn bi mooy xolwaan waaye xolwaan ñu ngi fa teg alqaqa dëkk bi ñuy wax Massa Bazaan Dirar ibn Xataab moo fa nekk doon xeetu gouverneur fa ñuy wax Qarqisia Omar ibn Malik moo fa nekk al Mawsil Abdullahi ibn al Mu'tam moo fa nekk Saad ibn Abi Waqaas ci boppam nag moo féete woon ci biir Koofa ginnaaw bu ñu ko plan ba tëral mbedd ba mu tegu ci aw nekk na fa lu mat ñetti at ak genn wàll kon Basra ak Koofa sanc gi ko jullit yi sanc am na jeexit ju am solo ci xilaafa islaamiya ndax e, Koofa giiri arab yi moom lañ daal di dëkke arab yu bari daal fay gàddaay dem dëkke ji foofu tuxu tuxu ñu jóge woon ci wàllu mm, ndijoor wet googu lañ dëkk si ñooñu arab yaa fa ëppoon dal foofu ci ko fa basra moom ña jóge ci wàllu chamal watu càmmoñ nga ñoo ñëw dëkkee si ko am dëkk bu ci ne buñ nattalee mbooloo ma fa dëkk dañ mat téeméeri junni ak juróom fukk jëm ñaar téeméeri junni ci ay arab kon ñaari dëkk yooyu sanc bi ko julli yu sanc loo am solo la ci taarixul islam euh, la ca topp mooy xareb nahawand naxawande nag moom lañuy ñuy tuddee fatool fatoox ci atum ñaar fukk ci gàddaay la mbooloo dajalooti ca wetu yas dëjërt wër yas dëjërt mbooloom perse dañu dem dajaloot foofu ndax benn benn yoon rek jamono bu ne rek ñi ngi seet nuñ foqar ceewaat li nekk ci loxoy jullit li jullit yi nangoo ci ñoom jamono bu ne ñu ci amul naqar di seet nuñ ko nangoo waat moo tax ci atum ñaar fukk lañ dajalowaat ca naxawante mboolem goxi faris mbooloo jóge fa ñëw ba dañoo mujj sos benn arme bu mag boo xam ne xaw naa mat juróom benn fukki junni jëm téeméeri junni ci ay xeexkat ka ko jiite moom arme boobee di ñu di ko wooye al fayruzaan fayruzaan moom moo jiite woon arme bi Omar ibnu Xataab digal Saad jox ndigal Saad euh, ci mu dajale ab armo boo xam ni euh, mbooloo mu bokk ci magi saxaaba yi dañ cay nekk daldi bind moom Omar mu bind bataaxel kilifa yi nekkoon ci raison yi ci des ni leen nañu fekke Saad biñ dajaloo armab Saad dem na ba war a mat ay fanweeri junni ci ay xeexkat mu jiital ca armo ba ka wax an Nu'man ibnu Muqarram Nu'man ibnu Muqarram moom moo jiite arme bi ñu daldi e, dàq jëm Nahawand bañ demee dañ ko wër ndomba ginnaaw bi la guerre bi tàmbali ci seen diggante mu doon guerre bu yàgg boo xam ne yiisaa perse yi dañuy gañe yiisaa jullit yi gañe ci biir xeex bi ci la fasu Nu'man ibnu Muqarran mi jiite woon arme bi aw fasam dafa tarxis mu daldi di daanu bi mu daanu jox drapeau bi kañuy wax Xusayfa ibnu Yamaan Xusayfa ci ak ñawam yëgalul mbooloo mi ni leen Nu'man daanu na ngir loolu mën naa indi ay rëng-rëng ci arme bi daf ko nëbbu daldi di jiite arme bi akuk njàmbaare jite ko akuk takku jite ko akuk dogo nonu guddigi gi dugg waaye bi guddi gi duggee yëf yi metti la eh, forfait yi deltu gannaaw jullit yi dàq leen dañ leen di dàq ka jiite dàq dàq ga mooy xaaxaa xaaxaa moo mujj dab kilifa tafsi ñu di ko wax alfayru sam moom ba may leen jiitoon xaax moo ko mujj dab ray ko noonu la Xusayfa dugge na xawand gañe guerre bi ci atum ñaar fukk ak benn yees da jër di dal daw mu daldi bind leetar Umar ibn yëgal ko ngañaay li jullit yi am lool mbégte ci fatxu googu yi ba tuddee ko fatxul futuux te mooy fathul foto ci wàllu politique mënees na ni àdduna euh, bi nam demee woon ñaari kàttan yooyu di ko xëccoo muy Furs ak Rome léegi àdduna bi kon soppiku na ci gañe guñ gañe perse yi ba seenug nguur taxawatul kon mu des genn mu des benn doole léegi muy doole waa Rome kon loolu feeñ na ci ginnaaw fatul futox ci wàllu li ñuy wax stratégie ginnaaw buñ fatxoo réewi perse yëpp ba jullit yi am bërëb yiñ taxaw de mel ni am nañ ay base militaire yoo xamante ni foofu lañuy ñuy samp seeni baas pour di jóge foofu nag di dem di seet di lijjanti ji leneen bu dee ci wàllu jullit bi ni perse dëgëre woon ci ñoom ak ni ñu leen ragale woon ba ba ba Omar ibn Xattaab di woote bëgg ñu dem fa sax kenn ñi ma wute wuyu ngir ragal bu ñu leen ragaloon léegi euh, soldaar jullit bi yëg na woyaf gu perse yi woyaf ci xolam léegi ba dafa mel ni dafa dal di firi ko ci ginnaaw buñ leen gañe ngañaa yooyu noonu ginnaaw bu loolu jàllee Omar joxe ndigal ci séddale mbooloom jullit mi def ko nangami kuréel kuréel bu ne ñu takkal ko ab drapo jiital ca kenn ci kilifa kilifay saxaaba yi yebal ko ci benn région ci région yi état farisi ngir mu mën a lijjanti jëwet googa ñu bëgg lépp mën a gëndoo ba lépp nekk ci loxoy jullit yi lépp atab islam di dox plan yi la ca Umar ibn tëral raison yi euh, raison bu féete wetu ndijoor am ci bu féete wetu càmmoñ am ci boo xam ne ca penku la féete am bu nekk ci digg bi fenn fu ci ne Omar ibn Xataab joxe na ndigal ñu yebal fa kenn ci magi saxaaba yi ndax ci wetu càmmoñ ga yebal na fa lu mat juróomi junni xeexkat ka ko jiite mooy Albarra ibn al ca digg ba ca wetu ci wetu penku ga mu yebal fa mbooloo ka ko jiite di al alla ibnul yas di jët nag ginnaaw bu xare yooyu amee ba fatxul futoox jàll dafa dal di dem tërki te buuru tërk di sàkku ci moom dimbal bëgg mu jàppale ko ngir mu mën a xeex ak jullit yi ndax dañoo nangu ko ak nguram Omar bin Xataab li ma waxee woon léegi mu wut ñeent mu digle ñu wut ñeenti kuréel yoo xam ne kuréel bu ci ne dañ ko yabal ci benn région ci région perse yooyu muy wetu ndijoor gi wetu càmmoñ gi wetu gi ak digg bi waxoon naa léegi ni wetu càmmoñ gi yabal na farmat juróomi juni nit kañu wax Barra ibnu Azib moo ko jiite ngir ñu mën a ubbi ji fa ñu wax Xaswiin ak ak Daylam waaye ba demee Eh, ndimbalu yàlla ànd ak moom ba mu gañe lu wóor daal di fay taxawal diine samp fa atti islaam jamono bi Barra ibnul Aazib nekkee ci wàllu càmmoñ di xeex amna na beneen bu jóg boo xam ni wax Utba ibnu Farqat moo ko jite asulami ma nga jëmoon ci wàllu Azerbaïdjan Azerbaïdjan yépp ay région la yoo xam ni jamono bi ñu toll ñu ngi ci biir euh, liñ daan tuddee union soviétique ci Russie yépp nag ay région la yoo xam ni waa Faris ñoo leen yilifoon seenu atti dafa dox jullit yi noonu lañ doon fatxoo benn par benn duggoon nañ ba Pétersbourg bi ci biir union soviétique kon jamono boobu jamono bi euh, bi bi bi Al-Barra ibn Azib di xeex ca wetu càmmoñ ga am na beneen arme boo xam ni kañu wax Utba ibnu Farqat moo ko jiite ñu jëm ca région Azerbaïdjan duuru Azerbaïdjan bi mu yëgee loolu la tàmbali dajale ay mbooloo moom tam ngir bëgg xeex ak jullit yi Utba yónnee ci Omar ibnu Xataab leeral ko euh, situation yi ni muy doxe bëgg mu dolli ko mbooloo dolli ko dolli ko dolli ko dimbale Omar dolli ko mbooloo am beneen force boo xam ni ci mboolooy jullit yi doon xeex ca Armenia ñooñu it dañ leen a jox digg ci ñu fekki ko ca Azerbaïdjan moom xot ba moom noonu la jullit yi takktoo daje ak noon yi ci xare bu metti boo xam ni fa mujj mooy Azerbaïdjan dugg ci loxol jullit yi ñu taxawal ay accord yoo xam ni euh, dafay am lu ñuy nangoo joxe dugg ci biir àtte jullit yi foofu la maaraka boobu daanu bu dee ñu jëmoon ca wàllu digg ba ak ci ñu jëmoon penku léegi wàllu digg bi ak penku bi am na ñeenti raison yi fi nekk raison bu ñu tuddee al iqlim al jabali ak faris ak xuraasaan Sajistan ñeenti régions yi ginnaaw bu xare boobu jàllee Omar ibn Khattab digal armo yi ba tey ñu dem ci régions yooyu ngir fatxo ji ko fa wax Asfahan yabal na fa mbooloo ka ko mbooloo ma ka leen jiite woon mooy Abu Musa al Ash'ari àndoon nag ka ñuy wax al Ahnaf ibnu Qays waaye noonu lañu ubbee ñoom itam dëkk boobu bay jël galak ci loxoy waa dëkk ba ñu nangoo joxe galak te mooy lemp bu ñaareel bi mooy iqlimu faris moom mbooloom saxaaba ñoo ànd fatxu ko bokk ña ci gën a siiw nag mooy al allah ibnu al hadrami osman ibnu abil ans mujaasha ibnu masaud mujaasha ibnu masaud kooku moo topp yes di jëdd bi mu dawee faris jëm xuraasaan ba foofee lañ ko mujj rey biñ ko reyee nag foofu la état force jeexe tàkk nag nga xam ne dara desitu ca de xuraasaan ka wax al ahnaf ibnu qays moo jiite woon mbooloo ma fa jëmoon bu dee raison sajistaan moom ka jiite woon garba mooy aasim ibnu amr at-Tamimi kon léegi mu des al iqlim al janubi léegi euh, li jëmoon ci wàlluk ndijoor kon moo ci des wàllu càmmoñ jeex na wàlluk penku bi jeex na digg bi jeex na mu des wàlluk ndijoor gi foofu Omar ibnu Xataab ma nga ca jiital ma nga jiital ci mbooloo ma fa jamoon kañu wax al xakam ibnu Omar at-Taxlabi foofu ger bu metti takk na ci diggante euh, jullit yi ak waa Furs waaye fa mujj rek mooy perse yi dañoo mujj daw jullit yi daal di dugg ci fa wax Makran moom itam dëkk yi ko wër yëpp ñu ubbi ko dugal fa diine teg fa seeni àtte kon noonu la xaaji perse yëpp mujjee dugg ci biir diine islaam foofi dugg leeru islaam di fa jolle ak maanu teem wa ma dalika ala bi aziz Euh, ñu jeexale ci loolu téere bi ñuy wax xayaatul xayawaan moo ko nettali euh, jëlee ko ci kañuy wax al fadaili ne Umar ibnu Xataab dafa bindoon bataaxel Saad ibn Abi Waqaas boo maga ca alxaadisiya ni ko neyebal Nadla ibnul Xaaris al ansari Nadlatul ansari na ko yebal radiallahu anhu ca xolwaan holwan la iraq ngir peggam ya holwan mu man ko fato mu yabal fa sa'd yabal fa nadla mu andak ak ñetti téméri gawar biñ démé ba ca holwan la iraq dem ba jël pegg ya lañ fa doon liggéey ñu liggéey ko fa noppé ba jëlé fa mu bari am ñu luñ fa jappé ba ñi ñibisi ba takusan jot jant bi dem bay waaj so euh, nodd la daldi dem ci peggu wenn doj dajale jur gi lam màngoon ak lam fa jàppewoon lépp mu dajale ko daldi taxaw nodd bi muy nodd bi mu ne allahu akbar akbar am lu ko wuyu ci biir doj wi ni ko kabarta kabarta kabiran yaa nodd la ni ko ni ko réel nga ku rëy yow nodd la bi nadd la ne ashhadu an laa ilaha illa allah loola wax ko ca biir dajoon ni ko baatub sellal nga wax noonu yow nadd la mu ni ashhadu anna muhammadan rasulullah mu ni ko kookii mooy ki nu Isa diggoon ni dina ñëw Isa Mariama te aw xeetam fa muy jeexe fala bis penci taxawe mu ni hayya ala salah mu ne ko texe ñeel na ka dox jëm ci loolu yi nga woote yow nag la mu ni hayya alal falaax mu ni ko ku wuy si woote bi yàlla boo bii ngay woote texe na ba mu ne allahu akbar allahu akbar illa allah mu ni ko matal nga sellal gépp yow nag la ci loolu yi yàlla araamale na ci sa yaram sawara bi mu noppee ca noddu ga nag moom mu jog taxaw ni ko yaway kan yal na la yàlla yërëm ndax malaika nga wala ci jinne nga bok wala nit nga ndax dégtal nga nu sa da nu bëgg nga won nu sa jëm ndax délégation bi délégation bi yonent bi yalla bi la sallallahu alayhi wa sallam délégation Omar bin khattab la radiyallahu anhu bi mu waxee loolu moom doj wi xar am jëm ju genn yoo xam ne ba baa ngi tal bi mu sol ñaari sagar daal di ne asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ne ko wa aleyka wa aleyka salaam wa rahmatullahi wa barakaatu yowaay kan yal na la yàlla leen man maay razin ibnu barsanillah man man man maay dénkaan li fi jaam bu baax ba isa ibnu mariama dénkaane woon moo ma dëkkal fii ci doj wii moo ma ñaanaloon gudd fan ba ba muy wàccaat ci kaw suuf bu ngeen demee nuyul leen ma Omar ibn Khattab te ni ko yow Omar na nga jubal te dëgëral ndax mbir mi jege na demee neel neel Omar leen ko jikko yi ma leen di bëgg wax ne leen ko jikko yi saa bu feeñee ci xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba yeboo daw jikko yi mooy buñ demee ba góor ñi doyloo góor mooy góor ñi di doyloo seen moroom góor góor ak góor di séyante mu mel ni loolu dafa mel nit lii xew jamono bu léegi bi rek la gisoon ba di ko buñ demee ba góor ñi doyloo góor jigéen ñi doyloo jigéen nit di askanoo fu dul ab askanu kaayam te mooy dëkkale sa bopp foo dëkkut mag ñi yërëmatuñ gone gone wégatul mag ñu bàyyee digle lu baax kenn digleetu ko lu bonit ñu bàyyi ko tere kenn tereetu ko boroom xam-xam ba di jàng xam-xam ngir di ci xëcc àdduna ñu dem ba ab taw mbooye képp lay doon saabu bu xiinee ba njàppandee tax mu doon mbooye doom du doon lu dul aw naqar ci ka ko jur ñuy guddal ay soroor di xoob jàkk yi nu mu gën a rafete gën a leen ci di fab ay kaamil di ay jàkk yi ñu di ko rafetal di xoob kaamil yi ba ba ba boo gisee jàpp ne or la ger ger tasaaroo ci adduna bi ku ne fa ab neexal la fay xaar ñuy xëccoo tabax yu kawe ak topp bànneex neex jaay seen diine jëndee ko seen adduna di dogu bokk atte bu maandu kenn atteetu ko nit ñi di lekk riba ku am mom kom ku ne ñu def la ngay bur nit ku ñak ku ne ñu toraxal nit genné ci këram nit jog taxaw di ko nuyu ta moko gën nit ñi nja li sabu bu amé bu ne ba waaj tax bis bis ci taxaw na ba noppi loolu bi ko waxé la ni mes nadd la dal di bind bataaxel sa'd ibn Abi waqas leral ko ko sa'd bind lettre Omar leral ko ko Omar tontu ko ni ko na nga demal sa bopp ba àgg foofe eh, ba mu demee ba muy dem mu yóbbaale lu mat ñeenti junni nit waaye wax nañ ni sax na fa lu mat ñeent fukki fan di noddu waaye kenn tontuwu ko eh, déggatul kàddu ko kon loolu dara la loo xam ni mënees na cee jànge muy mbooleem xew-xew yi nu toll di ko dund rek moom waxoon na ni ci màndarga mu mujjug jamono la bokk te buñ ca àggee ku ne na waaj te xam ne bis ci dee mu jot loolu jullit bu ne war na ca bàyyi xel ñu gën a góorgóorlu bu baax fàttaliku li nu fi indi ci àdduna bàyyi nu fi te mooy jaamu yàlla gu sat wecc ñu xam yit ni àdduna gàtt na gàttaay boo xam ne jërul di jëndee di ko jënde di ko jëndee ëllëg te ëllëg yëmut fenn te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ni góorgóorlu leen ci jëf aw yiw góorgóorlu leen ci jëf aw yiw góorgóorlu leen ci jëf aw yiw ndax ay fitnaa ngi ñëw yoo xam ni day mel ni dog yi si guddi gu lëndëm nit dana xëy di ab jullit bu gonte di ab yéefar nit dana gont di ab jullit bu xëyee di ab yéefar la koy waral mooy dafay jaay diineem jëndi ko àdduna loolu nañ ko bàyyi xel di ñaan yàlla da jamono bu ne mu dalloo jullit ja ca ak jullit e, musal nu ci fitna yu bari e, defal nu ak njub defal nu ak dégg ak topp jamono bi ne la yonente bi doon woote jullit yi gën a delloowaat seeni xel jëm ca li Sëriñ Tuubaa ñëwoon di ko yeesal moo yëpp gën a delloo seeni xel jëm ca yéen yàlla dimbale dimbale mbooleem ñi déglu ak ñi déglu wul asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu albilawo Let me